affaire Ousmane Sonko boobu. Mhm. kilifa yi ñu taxaw ci nu mu gën a gaawee ñu bàyyi ko ndax Ousmane Sonko kat li may yàgg a wax rek. maanaam fu mu ne nii ci biir cin cin cin la ci kaw sawara buy bax de. Mhm. waaw waaw fekk bàyyi ñu ko daal dal moom buñ ko séentoogum waaw. Mhm. jërëjëf mbokki internet yi buur a ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaar di leen ndokkeel dellusiwaat ak yéen ci beneen jataayu xam-xam di ñaan yàlla sunu borom moom miy buur sunu jataay bi yàlla na fekk jàmm te bu fekkee ci bu leen fekkee ci jàmm yàlla na ngeen jëflanteeg jëmm ji di Serigne Fallou Dramé Serigne Fallou Dramé nag dootuma ko présenté xam ngeen ko damay wax ni bokk na ci Serigne si ñi ëpp xam-xam ci réew mi loolu la yàlla dogal macha allah saa man maa ko garanti tekki neen wallahi wallahi ndax judd bi ndax ku ñu tudd tëdd sëñ Moussa Dramé borom daaru Pakacar góor yàlla mu ko wax ni que maamam bokkoon na ci góor yàlla yi fekk woon Cheikhul Khadim fële ca xomat Cheikhul Khadim yebal ko Saalum mu toog fa tey jii waajuram moom tey di alxalifatul amr tey wax dëgg yàlla moom it muy góor yàlla di ñaankatu yàlla euh, tey nag ñu fas yéene waxtaane waat xam-xam waaye waxtaane surtout mbiru Ousmane Sonko ndax moom mii ku ci sonn la ku ci sonn la ku ci sonn ku ci sonn sëñ ñoo ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel ay information yu jot sànq ci maître Ciré Clédor li mu démentir li le ministre de la justice wax Ismaïla Madior Fall ci Ousmane Sonko ndékki na samedi dara jot ko moom maître Ciré li mu ngi alerté ba tey l'opinion nationale et internationale ne Ousmane Sonko kat bu ñu moytulee loolu di insuffisance rénale dina ko dal di jàngoro ju doy waar goo xamante ne amaana mën nañ sax ñàkk bakkanam waa kay bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa ala sayyidina wa mawlaana muhammadin il wa ala aalihi wa sahbihi ajmain fa radiyallaahu taala anil habdil xadimi riddan yasmulul ala wa sawil mahabba asalaamaaleykum wa wa barakaatu buur maa ngi lay delloo ab nuyu nuyu Duudu mi nga àndal sa caméraman di nuyu itam mbokk internet yi nga xam ne ñooy siifoo euh, site bu mag bu barkeel bi di bi promédia mm. ak fu ñu mën di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal suutura ak tawféex ci seen mboolem yëngatu yi xarakaat mm. yeeg sakkanaat yëpp di ñaan yàlla mu barkeel ko niñ ko baaxoo ñaan itam di ñaan yàlla mu def dal def jàmm itam ci biir réew mi waaye itam def ko ci bitim réew mm. incha allah rawatina ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw rawatina ñi nga xam ne itam ñoo tëdd ci lal hôpitaux yi ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di ñaanal sunu borom subhaanahu wa taala mu defal leen infiraaj incha allah mhm. bismillah li si maître Ciré Clédor wax mhm. ne wax dëgg yàlla mhm. démentir na ki nga mooy ministre de la justice moom mi neen Ousmane Seck Ousmane Sonko ndékki na maître Ciré Clédor nag mu ngi alerter opinion internationale et ne Ousmane Sonko bu ñu moytuwul dina amee insuffisance rénale. Mhm. di jàngoro ju bon ju mën na cee ñàkk bakkanam. xam nga mbiri de moom li ci doy waar. te damay wax ne képp ku ñu jiite ak loo mën di jiite donte juróomi nit la. da nga leen war a tene ci lu baree baree bari njiit bu mu mën di doon waaye rawatina ci côté yërmande. Mhm. njiit dafay am yërmande. maanaam rawatina bu buñ la dajalee doole yépp teg ko ci sa loxo. Mhm. Euh, rawatina doole ju mel ni li ñu tuddee pouvoir xawma judiciaire yu mel noonu. nga xam ne daanaka boo bàyyul xel sa borom dëgg-dëgg koo bëgg tëj mën nga koo tëj koo bëgg a xañ liberté mën nga koo xañ liberté am nit ki dafa war di bàyyi xel te wax naa ko ba tàyyi ni ko sëñ bu mag waxee ci nax ju xatal mm. nit ki bul gis moom mais gisal yàlla ci moom xaqi man xalaxahum ni ko sëñ Tuubaa waxee mm. waraaxi fi fi fil xalqi xaqa man mm. man xalaxahum mooy àq yàlla mi leen bind xam nga nit kuñ ne grève na lu tolloog juróom-ñeenti fan ñëpp di inquiété wu ay soxnaam ay doomam ay juróom ay soppeem ak képp ku aju ci moom wala sa xol taq ci moom wala nga bëggoon ko wala nga yaakaar projet bi nga xam ne moom la porté woon pour sénégalais yi ñu ne toog na juróom fan yu mu lekkul joxewoo benn information bu dul rek di wane ne ndékki na juróom-ñeenti fan ñu génnee ci benn ndékki mm. loolu dangay dem ba da ngay dul xam lii ñàkk yërmande la wala doo xam daal lakkal lay jëriñ mm. te mbisu mbiru Ousmane sonk bii nag état di Sénégal bu teeyul mën na ci am gàcce am na gis naa borom xam-xam bu ne Ousmane Sonko bu ci génnee ak bakkan dina ko jaaxal. ndax li li ki ciy indil gàcce mooy Ousmane Sonko du nit kooku du nit koo xam ne danga koy forcer ci benn affaire day dem ba susku bu noonu la ko yàlla bindee nit ku nekk dafa am nu ko yàlla bindee. dafa am ñoo xam ne dañuy bañ ba baa ñuy sàngoo ji suuf loolu kenn mënu ci dara. ku mel noonu nag nga xam décision yi mu jël. dëgg la am na ñu naan xëy na bu dee day xaru jullit warul xaru yu mel noonu ndax xiifel bi mais mënees na ko gisee noonu mais mais mënees na ko bañ a gisee noonu mënees na ko gisee it ku ñu bëgg a toroxal nga riposté dëgg la donc effectivement te noonu la demee nit ki bu fekkee ne dañu da nga jàpp ne dañ la teg loo xam ne du yoon mhm. da ngay xool méthode yi nga xam ne jàpp nga ne moom nga ko mën a xeexee parce que moom comme que euh, confisqué nañ ko comme que moom denc nañ ko amul benn possibilité pour communiquer ak ñi nga xam ne Euh, ñoo ko ñooy ay soppeem ñi nga xam ne ñoo gëm li mu nekkoon ñi nga xam ne ñoo gëmoon procès bi doon ko ci jàppale. Mhm. kon benn seul la am bi tax nit ñi di ko fàttaliku nit ñi di ko bàyyi xel nit ñi di yëg ne mu ngi fi porose baa ngi fi. mooy mooy lii mu opté parce que bu ko deful defe naa lu yàggul dara nit ñi mën nañu jàll ci ne ndax Sénégal mais est-ce deewee du xaru. noo jàpp ko xaru nag ndax damay jàpp rek ne nit la ko. ku jàpp ne dañ koo teg lu naka su dul noonu muy riposté. noonu laa ko gisee. ba ci diine sax nga riposté noonu. ba ci diine waaw nit sañ naa bañ ba sa bakkan des ci. Mhm. sañ naa bañ bakkanam des ci donte it nit diine maye na bu ñu la bëggee teg naka su dul noonu ngir bëgg jël sa bakkan ci wàllu diine sañ ngaa weddi ngir. Eh, rawale sa bakkan ngir sa bakkan. waaye itam nit it sañ naa bañ ba rawale bakkanam. loolu mhm. am na ba tàyyi ñu bare bari faatu nañ ci yoonu yàlla te dañoo dañoo mënoon nañoo def lu leen di tax rëcci waaye dañuy riposte rek ba seen ba kon si loolu da nga jàpp ne Ousmane Sonko li muy def nii ah, day jiyaat ci yoonam la nekk loolu la nekk laa gëm. Mhm. damaa gëm ne ci yoonam la nekk. ci yoonam la nekk te li muy def xam na ko nag. Mhm. waaw lu mu xam la su ko defee état bi ci boppam moom moo war a yolamal. moo war a yolomal mooy nit bu fekkee ne da nga ko ëpp doole am nooy doxeek moom. Mm-hmm. te nga gis ne kii du dëpp te Ousmane Sonko moom du kuy dëpp. Mm-hmm. loolu moom amul kenn ku mën a tax. ba mu dakkal ci loolu. kon nag ñoom bu ñu ci bañee am gàcce ñu gaaw jéem ko libéré nu mu gën a gaawee parce que loolu mooy yoon. Mm-hmm. donc su ko defee loolu tey it xëy na maa ngi dégg ñu ne Macky Sall euh, président Macky Sall xëy na dina dem. Touba dem Touba am màggal gi foofu am nañ ci yaakaar na xëy na bu demee. Eh, ba gisee kilifa gi eh, jàppandal mën na cee am. ba ñu gaa yi ñu ngi naan sëñ Mountakha waxul ñi naan yëgu ko ñi naan yëgul information. Siré si moom ah. loolu la wax dafa ni sëñ Mountakha yëgul eh, yëgul ni Ousmane Sonko. maanaam fa nag ñaari mbir moo ci mën a am mën na ko yëg comme mën na ko bañ yëg. Mhm. mën na ko yëg bu ko yëgee it xam nga kilifa doo ko dicté lan la war a wax ak mhm. nak la gisee ndegam ñun ñi dong kenn ku ci nekk dafa am na mu gisee mbiri mhm. ñu nangul la ko rawatina kilifa gu toll noonu Euh, te moom nag ñoom nag fa ñuy jëlee fa ñuy jëlee ordre ñoom fa ñuy jëlee ordre ñoom ak source mhm. bokkul ak nun mhm. waaw ñun bokkul ak nun ñun wax sa xalaat la ñuy def ñoom nag. ndax sëñ Bass nee na dem moom tàppe na ci table ñu ne réew mi bu amee jàmm. c'est grâce à suñu. Ah, waaw ndax réew mi nar naa dem ci guuta ba tàyyi sëñ Mor sëñ Muntaxa moo wàññi yëf mhm. loolu moom defe naa ne ba tàyyi am na lu dul jeex. Mhm. saa yu demee ba nar a dugg ci kàmbu te loolu naka jekk nag ci wàllu diina loolu moom mos di am. Mhm. ndax bu fi tubaab bi di nekk ku nekk xam ne na ay xeex moo dana am ay bakkan tuuru. kilifa diini yi yee jiitu xëy na yee jàkk xëy na loolu nag seen méthode la woon. Mhm. ñoom dañoo gisoon na dañu war a jàmmarloo ak tubaab bi ak ngàndaay euh, kenn ku ci nekk na ak euh, li nga xam ne moom la sa sa ruux laaj ak sa sa li nga xam boo ci compté mën a dem ci borom bi. ak mhm. kenn ku ci nekk daal méthode ba ngay adopté. jamono sëñ bu mag bi ñoom biñ ñëwee ak maam El Hadj Malick ñoom ñu tànn weneen yoon di jàngale ak di yare mhm. te bàyyi fi tubaab bi mu ne fi. dégg nga ñiy defar nit ñi bu ñu defaree nit nit mbaax tasaaro su ko defee tubaab bi liñ bëggoon dootu ci ko am donc loolu defe naa lu am solo la waaw. donc loolu defe naa lu am solo la di benn parenthèse damay wax ni mënul ñàkk. Mhm. ndax kër gi mu bokk mënul ñàkk ndax li leen yaakaar ci mbooloo bu dëkk bi toll fii foog ñu waxtaanee ko te moom di wax dëgg yàlla yéen mbokk internet yi yéen a mën ni rafet lu ngeen xam-xam bi muy waxee ak yéen. donte que nag day ñaan yàlla waaye doomi soxna la sëñ Fall Dramé tey day ñëw ci bunt bu ama am solo mhm. muy buntub seet mhm. ñu naan ko listixaar mhm. nit seet na man mbiru Ousmane Sonko ne ma li koy dal li ma gis ci seet li ko nar a dal dem kaso moo ci gën a tuuti di wane kon seet. Mhm. taxawaay. boo mhm. bu am solo bi mu am ci mbir doomu aadama. Mhm. waaw seet moom day lu am solo ci lu mu mën di doon rek xam nga yonent bi da ci waxoon lu am solo nee na ñaar du ñu dugg ci kàmb sallallahu alayhi wa ñaar du ñu def erreur wala ñaar duñu ñu juum mooy kiy diisoo ak kiy seet ay mbiram maanaam listixaar ay mbiram balaa mu ciy dugg. kon loolu wane na seet gi am gi mu am solo dégg nga yonent bi moo ko digle ba noppi conseil nit ñi ñu jàpp ci bu dëgër dëgër di diisoo di diisoo nag ko ko rafet. ndax booy diisoo koo xam ne it eh, ni ko sëñ Modou Moussa waxee booy diisoo da ngay diisoo koo xam ne regg na reer. Mm-hmm. te te kii waaw loolu da ciy am solo waaw ndax bu fekkee nit ki da ngay diisoo moom te dafa yaakaar ci yow dara mën naa am bu lay wax lay intérêt la ciy gën a bàyyi xel ka wax la dëgg. Mm-hmm. kon diisoo mënul ñàkk waaye itam seet say mbir mënul ñàkk ci lu mu mën di doon. moo xam xew-xewu jamono lépp di ko xool la nga ci xam koy comme solution ko di ko def fan yëpp wax dëgg yàlla nit ñaa ngi may woo di ma laaj ay dog yoo xam ne ma di leen ko jox ñi di ko liggéey. Mm-hmm. yooyu yëpp wax dëgg yàlla sant yàlla. Mm-hmm. te loolu lépp dañuy seetaan yëf yi rek kenn ku ci nekk am cofeel eh, gis leer goo xam ne jàpp nañ ne mën nañ ci mën nañ ci tëbb su ko defee ñuy ñaan ay dog yoo xam ne mën nañ ko def ngir jëmale ko ci Ousmane Sonko ñi di leen ko jox ñoom itam ñi di ko liggéey yooyu yëpp ñuy ñaan yàlla rek mu sottal ko. Mm-hmm. su ko defee seet lu am solo la dëgg la nag man nag Ousmane Sonko ni may gisee mbiram wax naa ko waxati ko te foofu laay insister man gëwuma ne yàlla dana natt nit nii rek pour rien. loolu hmm. amul déedéet déedéet. jullit moom bu ko yàlla di nattu rek. c'est am na maanaam. am lu mu ko bëgg a hmm. jox lu mu ko nàkkal. lu mu ko nàkkal lu mu ko hmm. dencal. lépp la loolu loolu histoire sax ku dellu ci histoire bu mu mën di doon rek. moo xam ci domaine diine wala domaine politique foo dem rek di ci gis ay référence yu dul jeex ci ci wàllu googu. Mm. nit yoo xam ne yàlla nattu na leen ba ñu sonn mu door leen di jox dara ndax xam nga luy solo si nit ki bu fekkee dañ ko jékki-jékki rek jox ko dara. te traversé wul lu méttee métti loolu bu ko amee da koy foowee. da koy foowee waaw gis nga ko mel ne maître Ablaye Wade nga xam ne Sénégal a nga koy jooy ndax lu ko waaye sikk-sikk xam ne démocrate la woon bu mag a yërmande la woon. waaw loolu itam li ko wan mooy ni mu opposé woo. Mm-hmm. waaw ni mu dajee coona moom moo tax bu bu ñëwee ba toog ci ki yëf yi day xam ne lii kat ndeke nii la demee ndax mos na koso. Mm-hmm. fanaan na fa waaye bu fekkee ne yooyu yooyu yëpp jaaroo ci nag doo ko xam. xam nga jamono yonentu yàlla Yuusuf alayhi salaam. Mm-hmm. dafa amoon juróom-ñaari ati beekoor. balaa juróom-ñaari ati ngi di ñëw. juróom yi lépp luy économique ci loxo Yuusuf la nekkoon mm-hmm. da daan ñàkk añ di ñàkk reer di mos tuuti ba nit ñi yegg ci di ko yedd naan ko waa yow mboolem luy dund mu ci sa loxo ngay xiif ba yegg ci daanaka doo mën a dox mu ne leen bis bu ma reggee fàttee ñuy xiif mm-hmm. te loolu dafa am solo am na loo xam ne bu ko nit ki dundul du ko mën a xam donc loolu dafa dafa dafa mat a bàyyi xel mm-hmm. su ko defee seet nag dafay bët du am solo moo tax li ma ci li ma ciy digle rek mooy ne ko nit ñi gën a fonk. nun nag alhamdulillah ni ma ko waxee woon sant nañ ci yàlla. seet itam lu ci bari jàng nañ ko ba maîtriser ko ba xam ko xamin wu wóor. leneen la ci dolleeku nag mooy barke bu yàlla di defal ku ne. ak la nga xam ne xëy na say waajur ak say maam ñoo la ko fàggul. waaye nag seet yi damay wax ne man bi mu ci gën a doylu mooy xel mu ram la ndax day xam-xam bu wér boo xam ne saa yoo ci seetlee nit ki da nga koy gis for force loolu mm. demee ginnaaw gi dees nay jëfandikoo lu mel ne listixaara moom it yonent wa alihi loo xam ne nag dafa xaw a niru sirk rek ñun loolu duñ ko laal ndax ñun suñu lépp alxuraan la mm. dara luy niru bokkaale yàlla du ko jege donc ñun loolu mooy sunu suñu baas donc ñun loolu mooy suñu base waaw mu bi kii gars yi fonk mm. nañ ko <laughs> waaw mooy moom day joxe day joxe résultat. résultat bu leer ci lu gaaw nag. day joxe résultat bu leer. di ko mm-hmm. joxe itam ci lu gaaw moo tax mm-hmm. gaa yi danu ko fonk bu baax a baax. Mm-hmm. moo tax itam daanaka képp ku may jëflanteel ci wàllu nopp li ci ëpp ci moom lay sukkandiku. moom noppam jooni jooni la ah, moom jooni jooni la waaw. moom kay bu ma taalee sama cuuraay moom ba taal ànd bi ba teg ko ci moom ba dóor li may dóor. maanaam ci saa si da ngay daal di gis moom effet bi moom. donc dafa nekk lu doy waar moom alooy xànjan moo tax mm. dama ko dama ko fonk gis nga ko yoonu xaatim rek laa ci liggéeyee nag mm-hmm. yoonu xaatim rek gis nga ko nii xaatim bii ñëpp xam nañ ko xaatimu musalasul xasaali la wax naan dafa bëri ay duggin waaye bii dugginu kursi la am na mm. yeneen duggin yu dul jeex nag waaye bii dugginu kursi la donc moom day def effet moom lu <laughs> day mm-hmm. day def effet waaw pas moom day def effet waaye pas nag ak ak nitam parce que hmm. parce que dafa am ñoo xam ne ñoo ko moom ndax man li may wax rek xam-xam du ku ñëw rek nga defal ko benn kii bi loolu boo gisee nit di sonn ci benn affaire te du am réussite loolu moo koy waral. Hmm. a war a nit ki da seetal ba xam kii lan mooy mbiram. Hmm. ndax lu ñu takk la ndax looy def ci aloy xànjir wir dëkk la ndax looy suul la ndax looy nangam yooyu yëpp kenn ku ci nekk am na foo foo foo ko mën a jaarale. mais boo yoree sa benn kii rek ku ñëw nga tibb jox ko ci du noonu de. su boobaa da ngay sonn nit ñi sikk la te li ngay def doo ci am ndam te donc loolu baaxul nit ku nekk la ngay liggéey lay sa ndam ci loole mooy nga am ci réussite. résultat waaw mu nga am ci résultat ñi di ko joxalante nga di ko dégg di sa xol di sedd. donc mm. loolu mooy sunu kii bi. su ko defee gii ni nga ko gisee nii moom bu fekkee ne xoolal nañ nit ki ba lii di mbiram pukki fas fas ak ñaar yi nga gis ñi def ko bu ñu defee li ñuy def. ba taf li ko di fas di jàng di taf li di fas ba mu noppi ba ñu boole ko lañ koy boole ba def ko nañ koy def moom ci saa si dina woote daal di sant ci kàttanu borom bi. moom moom ay baati jat la. ay baati jat la waaw ay jat la ay baat la waaw. yooyu yëfi waaye nag yu dagan la waaw. yooyu yëfi Saalum Saalum ay jati Saalum. mu ngi noonu sëñ bi tey ñu ñëwaat ci yeneen yu bees ba tey. Uh-huh, uh-huh. jaaru. Uh-huh. man ci yow laa xame ci mbiru jaaru lu bari. diggante Souleymane ak. jën waag dañu ko wane jaaru ba. tey nga yeneen jaaru yu ama am solo. waaw yi de moom lu ama ama am solo la te itam ñëpp war nañu fexe am ko ndax ku ne war na koo mën a am donc day jaar yu am am solo yoo xam ne damay wax ne bu fekkee nit ki am na ko moom dooy na sëkk sëkk rek ci wàllu ubbeeku. bu fekkee hmm. jaaru mooy man nag sama jaar doo ñëw rek ma jox la jaar loolu itam. ni koy lu bàyyi xel la am xaalis ak bëgg koo taxala ko am ku ñu xoolal la ne mënoo cee am itam. Hmm. nga nga nangul ñu góogale ngànt ndax nun dañuy bëgg lépp lu ñu jox nit ki rek. mu amal ko njëriñ hmm. waaw bu fekkee gis nañ ne jaaru du sa mbir fañ la orienté. bu fekkee foofa gënal la la nga xam ne foofu mooy sa kii bu la gënalul it nga xam ne kon yàlla moo tuddul suñu jëflante mm. ndax itam jëflante yàlla moo koy tudd rek waaye daal jaaro yi ku yàlla dogal nga war cee am ñu xoolal la ba gis na war nga cee am ba nga jot ci ci kàttanu borom bi maanaam bu fekkee ne da doon am loo xam ne du toog sa loxo jàppal na loolu moom loxo bu bënn loxo bu bënn mm-hmm. bu fekkee ne itam sa wërsëg da doon néew jàppal na loolu arrêté na bis ni ki tey mm-hmm. bu fekkoon wàllu kaaraange la maanaam dañ lay sonal nga nekk fenn ñi lay lëjal su boobaa jàppal na loolu dañ bu fekk da nga nekk fenn itam safoo woo ña fa nekk maanaam safoo wuñ la. neexoo nit ñi neexoo nit su boobaa boo ko amee di nga leen neex danga nga jékki-jékki gis nit ñi di la bëgg di la safoo. Mm, ci luñ sañ la di la approché ci anam boo xam ne yow dina la yéem. donc foo nekk di nga fa am jàmm di nga fa am envie. Mm-hmm. boo ko takkee it moom jaaru bi lu la waay jox nee naa la lekkal. Mm-hmm. waaw kenn du la liggéey ba mu jàppale ci kàttanu borom bi moom jaar allahu akbar jaar bi jaar la de ñëpp mën nañ koo am dégg nga donc jaar la bu bari ay boo xam ne mm. du loo xam ne lu ñu mën a toog fii di di ko wax la dégg nga mm, mm. bu bëree bëri njëriñ la bu bëri njëriñ la muy lu ama am solo naa leen sëñ dëgg yàlla ci xam-xam rek ci lay dox waaye ci kaw mu dagan sëñ ñu ñëw ci ndomb gi waaw ndomb gi nag moom solo si xam nga mooy lan bu fekkee kaaraange rek la protection bu wér. bu wér bu fekkee nit ki kaaraange rek moo ko yitteel na am doom bi ba takk ko. doom ak ñaata gaw la ñëpp ku moo ko ñëpp ku mën a am nag moom ñëpp ku mën a am ku rek. ku ne góor ak jigéen. ñëpp ku mën a am juróom-ñaari gaw la ku ne ku mën a am laax ndomba gi bu fekkee ne kaaraange wàllu kaaraange daal moom doy na ci sëkk te la feeg yaa ngi ko takk moom foo dem di nga ñibbisi ci kàttanu borom bi incha allahu taala. doom ak lu muy bañ. Eh, waaw li ndomb li li alxuraan di bañ rek moom bu ndomb ak jaaro yëpp ku ma koy jox dama naan la bul ko di dugal ci toilette xam nga ci sariya dañ naan bu fekkee da nga koo ëwee der nii aération mënu ko dugg kon dugal ko ci toilette nekkul lu araam waaye dañ koo sib. dañ waaye nag lu sib nag bàyyi ko moo gën def ko. moo gën def ko moo gën def ko. Mm-hmm. kenn du na dafa araam waaye sib nañ nga du ko dugal ci kii loolu it moo am ci jaaro rek xam nga jaaro ni ñu ko kastee nii aération mënu koo dugal dugg boo demee ci ci wanag. Mm-hmm. waaye nag comme dafa am turu yàlla yu ci nekk. dégg nga ak alxuraan bëgguñ ko di ko fa dugal loolu dafay nekk lu ñu lu ñu sib kon gars yi dañ naan yàllaa ngi fépp waaw waaw loolu waxin la maanaam yàllaa ngi fépp moom dëgg la waaye danaka nit ki bu dee dem wala dee lépp daanaka lépp lu taq ci xolam da koy simi teg ci néeg bi de boo watuwul dëgg la waaw donc loolu la hmm. su ko defee loolu ñu ci jubla wax mooy lépp loo xam dafa am turu yàlla booy dem ci wanag da nga ko war a warmaal da nga ko war a simmi bàyyi ko fi màggaayu turu yàlla dégg nga màggaayu turu yàlla bi tax da nga ko war a warmaal ndax turu yàlla kenn waru ko dugal ci nag ci kii dégg nga su ko defee loolu bu fekkoon ne yii mu wax amul ci maanaam aération mënu koo dugg foofe su boobaa moom day araam mhm. waaye comme loolu amul dañ koy sib lu ñu sib nag bàyyi ko moo gën def ko ndax boo ci boo ko bàyyee dees na ci am yoon eh, ndomba gi daal ñàkk ko am am wóoru ku ne war na koo jéem a am ndax kaaraange kat baax na de mhm. waaw kaaraange moom baax na fii jamono toll ku ne wat naa ut kaaraange ki taxaw ne yàlla may sàmm xam am ñoom dañoo waaw xam nga xam nga xam nga xam nga ñëpp yàllaa leen di sàmm loolu dëgg la. waaye yàlla mi ñu sàmm moo ñu wax nañu muslu qul a'uuzu bi rabbil falaq yàllaa ko wax de. yàlla moo ne wax waxal moo wax yonent bi nekkoon nel yonent bi nekkoon nel maa ngi muslu bi rabbil falaq. mu ne ko lan mu ne ko min sari maa maa ngi muslu ci ay lépp lu yàlla bind yàgg naa fi wax na lépp lu yàlla bind ni muy dégaase yiw loolu lay noonu lay dégaase aw ay yàllaa ko digle min sari maa xalax wa min sari xaasiqin isaa waqaba gis nga lëndam guddi dafa am aw ay ay musiba mu ne dee ci muslu bu lëndam gi tàbbisi wa min sari nafaasaati fil xoqat yi ay njabarkat yi ñëw mooy ñi kii di pas di taflit di kii mhm. xam nga yonent bi ci loolu lañ ko njabare woon ba mhm. mëntute ay cëram saar yi sax loolu moo taxoon ñu wàccee ko muy fàllax rek naa si mm. xaasi xam isaa ko min sa nafaset fi naqo min siri xaasidin muy ayu aji iñaan nga même ki iñaan sax da nga war a ci moom ndax ki iñaan mm-hmm. damay wax ne lim li gën a néew ci lim la yéene mooy faatu mooy dee mm-hmm. waaw xam nga Seydina Ali dafa waxoon ne iñaan ni mu ko tekkee mooy karama laa waccaxu ni mu ko tekkee mooy iñaan mooy nit ki yore dara nga bëgg mu ñàkk ko donte bu ko ñàkk yow doo ko am sax waaye na ko ñàkk rek. na ko ñàkk rek ngeen yem mooy iñaan yàlla nee na nag kooku del ci ayam ndax iñaan ay la ndax xolam bu tàng bu baaxul ci yaw mm-hmm. bët ay la dégg nga njabar ay la yooyu yëpp nit ki da ci mosum nit warul toog rek naan yàllaa may sàmm déedéet. Mm-hmm. boo doon jéggi na tali na nga jéggi tali bi gis ot yi di daw nga naan naa jéggi yàllaa may sàmm. léegi dañ leen bëgg léegi ñu tàggee la mm-hmm. donc kon loolu àddina moo bindoonu nit ki day aar boppam ci lépp Mm. lépp nag laa wax lépp. Mm. waaw nit ñi yonent bi digle na saa yu nit ki di tëdd maanaam na def ay léemu. Mm. na léemu joxe yu mu joxe nag kuy tëdd na ko def gis nga ko. ngir mucc ci seytaane ngir mucc ci lu dugg sa kër yàq ngir mucc ngir mucc waa léegi nag boo toogee naan yàlla may sàmm yàlla may sàmm de demewul noonu de. <laughs> yàlla may sàmm demewul noonu sëñ bi ndax dafa am ñaar lu ñu tuddee tawakul ak tawakul. dafa am ku ñëw ci yonent bi tawakul mooy jàpp jàppalu ci yàlla. tawakul nag mooy nga def li nga war a def lépp li ci des nga bàyyi ci loxol yàlla lu mu def mu neex la loolu mooy mm-hmm. tawakul mm-hmm. sëñ mag leeral na ko ci masaalikul jinaan dafa am ku mos ñëw ci yonent bi mu ne ko an sa gëlëm gi mu ko bàyyee naa ko ak yàlla yonent bi ne ko dellu nga yeew ko ba mu dëgër nga door koo bàyyee ak yàlla donc mm-hmm. voilà loolu la <laughs> la lu bare bari njëriñ boo gisee nit génnee ko nii maanaam dafa am càngat yu muy àndat ci ubbeeku rek lay dox dégg nga ci wàllu ubbeeku rek wàllu ubbeeku rek lay dox du moom kese nag dafa am yeneen juróom benn parfum yu muy àndal yu bokk ak bii muy ah, juróom-ñaar bii muy juróom-ñaar bii muy juróom-ñaar parfum yi boo koy jox nit ki moom moo koy jëndal boppam wala yaa déedéet maa koy jënd joxaale ko yëpp maa koy jënd lépp joxaale ko waaw lépp ma ko mu sangoo ko mu sangoo ko waaw lépp man ko juróom-ñaari fan dégg nga juróom-ñaari fan juróom-ñaari parfum yu bokkul ku wet di ñëwal seet waaw ku wet di ñëwal seet waaw <laughs> mm-hmm. sëñ Fall lii la mm-hmm. lii euh, sunguf la bu doy waar ubbil ma ko. maa du sama sunguf sa. moom la de na sunguf soo ma fi. ñamaloon ca ba ma moom la de moom la de sunguf bii de. xam nga moom laa liggéey wa jaxaltuloo maa la mam doo dan waaye mm-hmm. boobu may liggéey nga xam ne bu ma paree saafara si euh, moom laa koy gaasee weeraat ko ba mu wow mm-hmm. su ko defee am na cuuraay bu ñu ko léegi nit ki nag bu fekkee alal rek la bëgg luy jooni jooni moom lay am di ko suuroo Hmm. waaw moom doy lu doy waar la ci. moom sunguf suñu kaaseeg alquran. alquran la waaw wa jaxaltu lahu maalan mamduudan ñi xam hmm. wàllu la saraar lépp xam nañ la loolu ci alal rek lay dox alal rek lay maye. alal bu gaaw sax jooni jooni donc moom lañ ko booleel de nga ak cuuraay ba mu àndal cuuraay hmm. boobu nag bàyyil ma côté ko noonu waaye boo ko amee saa yoo xëyee nga coppati tuuti rek nga daal di suuru suuru daal di dem sa yoon maanaam bis boobu di nga nangu ba ba sant yàlla waaw man xam nga sëñ Fallou gars Mm-hmm. léeg-léeg am ku ma woon ne ma secret sëñ Fallou man jaaxal na ma. Mm-hmm. ma ne ko waa doomi soxla mm-hmm. ñaareel bi ku mu Moussa May yaral boppam. def ci yow xam-xam sëñ Moussa May. ku ko xam ci yoon murit laa wax de. waxuma koo xamul. ci dimension spirituelle bi ko yàlla mayoon. dafa kawe. dama ko naan sëñ Fallou. mënul nekk footballeur. Mm-hmm, mm-hmm. mënta nekk téer. <laughs> mënul nekk menuisier. Mm-hmm, sëñ Fàllu alquran mooy daw ci deret. ndeysaan waaw moom la xam wax dëgg la de sëñ Moustapha May moom nga tudd moom ma jàngal alquran. ndeysaan góor yàlla. te ba may doon tuut tànk nga xam ne daanaka xam xaw ma woon xamee gu ma lool. daf ma daa daa am lu ma daan wax. mbaa xam nga ne yow jàng rek moo la war. allahu akbar yow jàng rek moo la war. loolu it sama jur bu bu góor it daf ma ko daan wax. yow santuma la dara jàng rek laa la sant santuma la leneen jàng rek. Mm-hmm. waaw jàng rek laa la sant santuma la leneen. moo tax ma yéex a bàyyi jàng daanaka damaa jàng <laughs> jàng jàng waaw mu jigéen sama sama waajur bu jigéen day xul rek jàng xanaa du am àpp wallaay ndeysaan fekk boobu loolu la waaw bu ñu la santee jàng jàng rek ngay def. waaw mais ko war a dimbali jaam yi dafa war a jàng da ngay jàng xam. Mm. ndax doomu soxna xam rek moo ko war. moo ko war xam nga dañuy wax ne doomi mbër jàngil bari bëri yàgg yàgg des na la ñam te tekki ne mbër du lalu. Ah, waaw day màgg daanu. waaw donc loolu moo tax nit boo waree boo koy boo koy fenn fi ndax li tax mooy xam nga euh, moom daf ñu ko daan fàttali lu bari dafa mos a dugg ci benn bitik euh, wala boog romb ci benn bitik bi dugg naar la moom kilifa gi léegi ñam fa romb dégguñu arab ñu ne ko Dramé Dramé kaay kaay dimbale ñu fii kaay dimbale ñu fii naar ñii kat ñoom naar la ñuy wax te ñun xamuñu kii. Hmm. mu di ñu bi mu ñuy yee ci loolu mu ne ñu fu mu ne bu fekkuloon man ma jàng su boobaa keroog doon. naa am gàcce tas moom moom gàcce. waaw naa am gàcce ndax dañ ma dañ ma gis sukkandiku ci famille bi ma bokk. ak hmm. ki ma doon tax ñi ñi jàpp na war na maa dégg arab fekkaloon kera nag ma jàng moom su ko defee yooyu daf ko daan dugal ci suñu bopp dañu ci soññ bu baax moo tax ñu leen di sant ñoom itam di leen ñaanal yàlla mu bàyyi leen fi ba ci kanam Sëriñ Tuubaa daal moom Cheikhul Khadim mm-hmm. nee na budul woon Mbàkke mm-hmm. nee na Dramé lay doon wax jooju nag wax bu wér la mm-hmm. lu ñu vérifié ci nawloo gu mu nawloon askanu Dramé dëgg la waaye ci nawloo ak fonk ak yaakaar gi mu amoon Sëriñ Moussa te yaakaar googu alhamdulilah yàlla tas ko bokk nga it ci ñi ci ñi jëmmal yaakaar googu mm-hmm. ci njub damay wax chaque jour duudu ne mm-hmm. dama ko naan sëñ Fallou daf ñuy sagal mm-hmm. ndax bu ma nit wooye rek li may wax ah sëñ Fallou waxtaan bi ne ko kawe na voilà buur jëflante woon naa ak moom nangam wax dëgg yàlla sa borom dimbali ci loolu sakk la nee naa ku fi jaar ñu wooma ne ma buur sëñ jiw day lekk na sama xaalis danaa am gàcce sama xol ndeysaan ndax barke Serigne Mbacke man ne mm. sama yéene ci nit mm. ñi. Mm. mooy képp ku fi feeñ jëriñ jàmm. jëriñ jàmm man sama yéene googu rek laa am. du ay pexe yu may teg ak Serigne si. Mm-hmm, mm-hmm. du ay wax mm-hmm. yàlla seere na ko. mooy damay bëgg rek ki jàq. am njàqare. bu seetaanee émission bi. Euh, aajom faj aajom faj te ñu ngi sant yàlla te wax dëgg yàlla bokk nga ñooñu sagal. alhamdulilah sëñ looy tàggoo. sant yàlla yàlla googu laay di <laughs> sant yàlla rek. delluwaat ñaanaat eh, yàlla mu def jàmm <laughs> def daal ci réew mi waaye itam def ko ci bitim réew mi mm-hmm. eh, di ñaan itam loolu ñu ubbi woon mi affaire usmaan Sonko boobu mm-hmm. kilifa yi ñu taxaw ci nu mu gën a gaawee ñu bàyyi ko ndax Ousmane Sonko kat li ma yàgg a wax rek maanaam fu mu ci nii ci cin cin la ci kaw sawara buy baax de mm-hmm. waaw voilà fekk bàyyi ñu ko daal dal moom buñ ko séentoogum waaw ñu ngi leen sant baax di leen gërëm salaamaaleykum moom day dem moom waaw waaye yii moom day dem moo tax ñu am nañ borom ba noppi waaw. <laughs> alhamdulilah <laughs> kon jërë ngeen jëf gaa ñu di leen jox dig daje ci beneen numéro euh, ñun ak sëñ Fallou Dramé ci yeneen jotaay xam-xam.